waaye moo xaajal nag. xamee naa la kay dalal jàmm. waaw maa ngi nuyu bu baax di nuyu soxna Sow nga dendal. ñu ngi bu baax. ak seen muraay njëkk macha allah. merci. waaw di rafetlu jotaay bi à chaque fois rek. di wax sama xalaat. ci li xew noonu. dama koy njëkkee rek ñu ne kilifa. waaw wax war naa xalaat bu baax ay waxam. surtout nag Pikine boobu nga xam ne boo waxee da ngay waxaaleeg mbooloo waxaaleeg ñoo xam ne ni yëg nañ ko yëguñu ko kon bala nga xool nga xalaat bu baax li nga wax wax jooju boo gisee ma wax ko dama koy delloo ci labbe bi doon tontu premier ministre bi ndax yow boo ne kilifa nga da nawoo sa bopp na yow say kàddu yittee ak yu rafet lañ ko ciwaat danga nga war a rafetal bu baax a baax say kàddu woddu koo ba booy wax xam ne yow li wax nii lu am solo la te lu rafet lu teggin la loo xam ne ëllëg ji ku ko dégg da ne ah kii kat wax dëgg yàlla d'accord ci lii waaye nii ak nii la ko wax waaye mënoo nekk di wax wax joo xam ne nii yow la ngay wax ak na koy wax boo dee xool comme yàlla yaan ndax yow dangaa ñëw di personne nit ki tey ni kooku Sénégal yi wala premier président bi Sénégal yi woowu fal cinquante quatre pour cent moo ko def premier ministre mu nekk premier ministre tout Sénégal moo xam ngay chrétien moo xam ngay jullit koo man ni doon mooy sa kilifa jamono ji wàllu état Sénégal mhm. kooku boo xam moom war ngay wootu say waat say kàddu wax say xalaat bu baax a baax boo wax ak moom nga xool say wax nga wax ko wax yi bu rafet jox bu ko dégg da nga kii kat kilifa moo wax waaye kilifa ji tontu na ko ci ak nii waaye ku dégg ni mu waxee xam ne kii am na lu baree bare lu làmb ci ay waxam ci biir gëm naa ne fi mu bokk sax muy chrétien yi sax d'accorduñ ci moom te xam naa ne du fan yi néew dinañ génn wan na ko lii nga wax ni amuñ cee kaw ndax dañ leen daan bàkkee na leen ñoom da buñ daan wax wax ju tey la ñuy wax wax ju responsabilité wax joo xam na day am fulla am fayda waaye kii boo déggee waxam ay saagaat ay wax yoo xam ne daanaka ci ay politiciens nga ko daan dégg man dama koo ñaawlu loolu te li premier ministre wax moom moo ci waroon ànd cent pour cent ñun Sénégal am Sénégal fi lañ tuddee ñun ñëpp mm-hmm. fi la suñu doom di jànge ñun ñëpp kenn ku ne boo soñoon li ngay am lépp Sénégal nga ko amee déglu France wax ko ba dem Espagne wax ko wala Allemagne boo demee France am nañ seen charte yoo xam ne ñoo ngi ko teg premier ministre leer sax dañ ko fay aaye te loolu dëgg waaye ñoom comme seen dëkk la bu leen neexee ñoo ko moom waaye Sénégal nag ñoo ko moom. fii boo nee quatre-vingt-quinze pour cent yi musulman lañ ay jullit lañ yéen ngeen nekk te boobu ba léegi ñu dund ci jàmm ak salaam ñu ne nag maanaam. ak tax yelleef la ci Sénégalais bu ne booy jàngi yaa xam ngay ab jullit moo xam ngay ab chrétien école boo dugg yow la leen sa diine d'accord nangu la ko am nga droit ñu nga dem dugal ko ci école ba jàng waaye lii lu ci jar coow lan moo ci wax loo xam ne nii bay wax ni wax joo xam ne nii day indi ay polémique di wax joo xam ne nii ku la ci dégg xeet la xam nga nit ñi dañuy jaawale maa ngi dégg ñu bari di daan di boobu naan ñoom seen eh, kii la ñor seen école bopp la ñor ñoo ñor seen règlement bopp lu ñor ay école ay règlement daa mu leen tënk li ñu tënk mooy moo tënk ci di tënk chrétien mooy la ñu ab république lañ république du Sénégal la wax ñooñu daal ñu ko jiite ñu ko jiite nag lépp lu ñu dogal Sénégal te mu ànd ak charte Sénégal ko kenn ku ne ci yéen da nga koo war a doxe waroo ci am xaj waroo ci seen kon man xaaruma woon ci lii ñu wax te man dama ko jàppe comme li xewoon rek ci ginnaaw hmm. moo système be système bi rek système bi nga xam ne moo nekkoon ci yenn yenn ñuy ñëw ay jullit yenn ñuy ñëw ay sëriñ gis nga ni ñu daan génne di défendre Macky Sall ci lu bare bari mooy waa ji doon wax rek waa ji dara ñoru ko man pour man man pour man maanaam wàllu diine bu ko ñoroon yitteel ko mu xam li muy li muy dund diine yëf lan la wax ji mu du ko wax hmm. kàddu yi mu ko yëkkati kilifa goo xam ne ni boo waxee ay junni nit di la déglu di taataan say xalaat ak say wax war ngay xalaat bu baax wala ngay wax la wax man la saa yu génnee rek du génn kon nañ jéem a xam ne senegal yi ñoo ko bokk ñoo bokk ndey bokk baay Sénégal fii jullit yi fi nekk jullit yu mën a maslaa lañ chrétien yi fi nekk chrétien yu mën a maslaa lañ mm-hmm. amuñu benn xaar ma yàlla kenn ñun tey fi tey quatre-vingt-quinze pour cent yi jullit yëpp bu leen neexoon tey ñu ne dañu attewoo lislaam waaye ba tey gis nga woo li ñuy attewoo ñun ñëpp dañ ci tënk jullit yi sax ci lañu attewoo te mosoo gis benn jullit di xoqatal wala ñu tiital ab chrétien bu fi nekk wala chrétien yi tiital ab jullit kon bu kilifa waxee boo koy tontu da nga koy tontu ci tontu ya gën a rafet tontu responsabilité ak tontu yoo xam ne nii ku la gis ku la dégg xam ne kii kilifaay wax waaye ku tontu saaga ak di wax lu ñaaw ak di xuppaate xuppaate yooyu nag dama koy wax moom monsieur Ndiaye moom c'est boo ma dalal xelam ci xuppaate yooyu gis nga xupp yi xupp woon Abdoulaye Wade ba mu wàññeeku ñu xupp ko Macky Sall xupp ko xupp ko Abdou Diouf ba ci Senghor bi nga xam ne lu yàq Sénégal moo ko yàq lii ngay dégg yëpp Senghor ko indi mooy ñëw fexe fas yéene jaxase woon Sénégal ci lu bëree bëri jël jullit yi lu bëree bëri am na xam ne kenn du ko wax sax nañ leen defar moo ñu tax a jóg waaye gis nga yooyu xupp yooyu ñuy daal di noonu moo jeex Sénégal gis nga fii koy defar ñu ne kenn jullit yi chrétien yi ciy ànd nag defar ko kenn am sa àq ak sa wëlleet la fi nekkoon dafay jógee loolu moom laabe bi dama koy wax say boobu xam ne bu gënee ne bu yaakaaree ne mën naa xuupaate wala muy génn yuuxu wala muy wax dara ba yaakaar na mën na ci am benn lu koy tiit wala koy xoqatal wallaay xamul suñ jëm bu xamoon maanaam président bi premier ministre jëm ak ànd ak moom xam nañ ku baax ndaw ñi yeewu nañ gis nga bu njëkk nañ leen daan nax ci lu baree baree bare ndaw ñi kenn mënu leen nax léegi fañ jëm xam nañ ko te lu baax dong luñ bëgg Sénégal yéen kenn kenn ab safaan buñ sañoon kenn képp ku Sénégal ku ñëw Sénégal dafay dégg boo sañoon nga dund ko dafa am benn jafe-jafe ñun nag waxuma la ñoom dëkk Sénégal waaye ñun ñoo bokk Sénégal ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ci lépp dañu dem laan rek dëkklante waaye kon loolu dañ ko war a xam bu baax ñu mu sàmm xam ne xuppaate yi moom day jeex xuppaate yu yàgg yeeg ay tiitalaateeg ay di jéem wax wax joxam boo ko waxee nit ñi journaliste yi xëy suba def ay revue de presse naan na naa ngi dañ lay jaay dong kon jàpp na ni li mu wax noonu ay xuppaate la loolu nga ko hmm? jàppee man ni euh, message bi nga xam ne bind na ko la premier ministre tontu ko jàpp nga ni ay xuppaate la waaw moom boo dee boo gisee discours la xam nga ñeneen ñi sax hmm. maanaam nit ay kàddoom ngay déglu xam ne kii maanaam amul élégance dëgg-dëgg wala maanaam xel mi soriwut boo gisee ni mu waxee xam ne kii xam-xamam soriwut wute na ceeg ñu bëree bëri ñoom boo leen daan dégg seeni wax day rafet day teey day jekk ba pare day ma ànd ak yar bu mat sëpp woyof tooy nga xam ne du ñëw dañ xalaat xam ne lii lii ak lii mën ko mën koo xalaatee mën ko koy sëñee waaye fii ni mu waxee boo ko see xam ne maanaam maanaam moom politicien bu làqu la rek boo dee xool dafay waxam boo ko dégloo xam ne kii ku éréquage la ku yëg boppam la nag xaw ma lan moo nekk ci ginnaawam nag waaye ku yëg boppam la ku amul fit ndax boo ñëwee ba taxaw premier ministre tout le Sénégal nga taxaw di ko wax wax yi wax yi nga wax bi ak di wax yeneen wax yoo xam ne ëpp naa wax ci rajo wala ci télé te nit ñi xam ko bu baax ndax yi nga wax lépp nit ñi la gën a xam loo jàng nit ñi la loo jàng loo xam nit ñi xam nañ loo xamut ñun dañoo nekk ay jullit di maslaa ñëpp comme ni ñu ko lislaam diggale képp koo nekkal moom bi ngeen bokk diine ñoo leen maslaa seen kémtalaakàtte bi daa sawal seen diggante ba ëllëg yomal xayaam yàlla mooy àtte koo kon kon kon Sénégal bi dafa gaaw a tënk ci loolu tënk bi la mooy naan bu kenn xañ kenn lenn bu kenn xañ ak ak yelleef kenn mënoo nekk ci réew ay jullit nekk fa wala ay Sénégal nekk fa bëgg a jàngee ci école ba ne dañuy muur wala du am na yoo xam ne nii daa mënut a continuer. Hmm. gis nga maslaa bu bari nag. Hmm. ma day yenn saa yi am na yoo xam ne duñ duñ jóg loolu dañ maanaam dañu jàpp jullit yi wala nit ñi. fii ni xoolal wax ji si fi mu ko dugal sax fii maa ngi dem bay dugg ci wàllu julli dañ naa ki daal fekk wax ji du woon foofu wax ji diggante kuy jàngee da ngaa war a muuru doo muuru waaw da war a muuru école boo dugg loolu la woon waaye fii ni moom moo jël wax ji fas yéene ko orienté ci diine ba ngay indi ay jafe-jafe wala xaw ma dañ ko yónni xaw ma ko ay daam ni ko ngem moo tax na dalal xelam te toog te réglé te xam boppam yii muy def nii kenn da ko ci naw te kenn mënut ci am mënu ci am ndam mukk mukk ci àdduna na respecté Sénégalais yi ñaara bi la may wax mooy. Mhm. président président bi de la république tous les sénégalais muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye démb def na lu am solo muy leen ñu dem Touba fas yéene jëmbat garab gis nga garab dafa am solo te nit ñi ñun li ñu gën a sàggan ci loolu. Mhm. ñun dañoo jël maanaam li ñu mën a dundal ci àdduna ñu toog ci sàggan muy garab te garab dafa am solo. Mhm. muy yow yéen ñaari soxna yooyu ak kër bu ngeen dematee seen kër bu ngeen amee temps wut leen garab ngeen jëmbat. loolu seen bopp ngeen koy defal defal ko seen njaboot ndax garab boo ko jëmbatee bu màggee même bu la jëlee dara jëriñ keneen ndax nit bu demee ba sonn bu toogee ci kër googu yàlla ba na laa dimbal bindal ci tiyaaba jooju mën naa nekk garab boo xam ne mën naa nekk mango wala leneen leneen nga wuti ci di liggéey di faju di lekk mhm. kon dañ bokk nday bokk bàyyi Sénégal ñun ñoo ko moom kenn mënta tee nag fii réew mi jëm ci soppeeku gi ku yaakaar ne mën nga cee taxawal dara la ngay sa bopp réew mi day soppeeku de incha allahu te ndawi Sénégal ànd ko Ousmane Sonko ñoo ko soob merci beaucoup accord am na merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit nag daal nay dugg rek wax xalaatam ci li nga xam ne nii moo di waxtaanu bés bi ñu doon waxtaanee tey mu nekkoon euh, sujet bi nga xam ne ñeel na wàllum voile yi ba sax euh, abbé Latyr daal di ci ci ay kàddu donc moom si noonee la ñëw gis-gisam nag mooy que ni dafa euh, daal di d' accord ak li nga xamante ne nii le premier ministre wax na ko et que ton bi nga xamante ne nii moom André Labe wax na ko. waru ko warul woon a waxee noonu ci côté boobu ci ko xamante ne nii daanaka nekk na kilifa ci biir Sénégal surtout ak euh, daanaka euh, premier ministre bi nga xamante ne nii tey jii taxawaay boobu noonu la am moom daal gis-gisam du leen lu dul euh, maanaam message bi mu doon lancé ni mu ko waxee amaana waru woon loolu moo nekk gis-gisam mu nekk li nga xam ni comme ni ñu ko doon waxee sànq rek waxtaan bi yaatu na loolu kenn ku ci nekk sa gis-gis nga si am kenn ku ci nekk. allo salaamaaleykum waaleykum salaam. ah waaye yéen si jafe ngeen a jot soxna si ñu ngi leen di <laughs> ñu ngi lay delloo siyaare bu baax a baax di leen di nuyu ah, <clears throat> xam na nga xam ne moom boo xamul ne ñu ngi lay déglu am na ñu lay dégg. dëgg la. kon ñu ngi leen di gërëm ci opportunité bi nga ñu may nii vraiment. Euh, ñuy wax sunu xalaat di wax ni ñu démocratie c' bien mais dafa loo xam ne démocratie anasi la. Euh, ñuy dellu si rek ci waxu premier ministre gannaaw bu nga xam ne Touba Mbacke bi ñu liggéey rek liggéey bi rafet démb. wax dëgg yàlla sunu xol set seet nañu ko yëpp. macha allah nañu ko macha allah laa la cat naaw la ma lambe. président Diomaye si ayca ca kaw jaxaar fay ca kanam ca kaw ca kanam euh, beneen bi ci des li président premier ministre wax tamit il faut que ñu saluer ko mhm. gis nga réew soxna si man nag ci alxuraan laay wax te alxuraan ku ko tudd da tudd suñu borom tabaraka wa taala yàlla dafa dogal wax moom mu ne mhm. ahlul kitaab yii na nit ñi respecté ku nekk jox leen cër mhm. euh, yaa ayyuhan naas ak yaa ayyuhal lazina amanu bokkul ak annal kaafiruuna laa mawlaa lahum yàlla nee na ñi seen diine que reconnaître na man rek maay seen borom ñoom waa kër Isaa ibnu Maryam ma nga ci suuratu Maryam kaafir haaza zikru rahmatika rabbika Zakariyaa isnadahu rabbahu nidaan xafiya seen diine bi yàlla moo ko nangu na leen na ngeen leen joxante cër mën nañu nekk ne kenn bu rafet comme ni may liggéeyee ak ñoom nii am na ñoo xam ne ay chrétien lañ dañuy liggéey liggéey bu rafet dans le cadre du travail ñàkk caaxaan la